salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi topp seen télévision Mafatul Bichri ñoo ngi leen nuyu di leen ziare bu baax ñoo ngi fii ci kër sëñ Cheikh Ibrahima Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadel eh, fii ci Ndaamaatu ñu fekk muy màggal màggalu Kazu Rajab gi ni nga xamee noonu la ko waajuram Cheikh Mamadou Fadel doon defee waaye waa kër sëñ Fall yëpp di ko defee noonu mooy jàng alxuraan jàng xasaayid ak bernde waaye taalib yi ñëw di ko ziare tabarakallahu mu di leen delloo ci seen borom waaye di dimbale way yi. Euh, di masla ak nit ñi bi ñëwee nag nañ ko defe woon rek nañ ko daan defe at yii yëpp rek incha allah euh, fas yéene ànd ak moom ci kàddu yu barkeel yoo xam ne dinañ ko yëkkati ci moom incha allah bi daa bi ñu la ndokkeel la bis bi ma fàttewul Bichir yi ak équipe am yëpp ñoo ànd di la ziare ba di la ñaanal suñ borom nga yàgg fi loolu tànn ko wér yàgg taxaw bis bii te lépp loo ci def sëñ Fallu nangul la ko ñu ngi lay ziar ba xanaa kàddu yi ñu daan sàkku rek mooy kàddu xam ne day jëm ci borom bis bi ak bis bi waaye message bi nga xam ne da ko jàllale ci taalib yi nga xam ne ñuy topp Mafatihoul Bichri waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jox na joxaane Cheikh Ibrahim taalibu Sëriñ Falil maa ngi leen nuyu nga àndal équipe bi nga àndal yëpp te teew ci bis bi nga xam ne bisub Sëriñ Falil la di guddi nga xam ne yaakaar nañ ci tawfeex lool ndax ci la ku tëdd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rayaan dem ci boromam ah, Cheikh Amadou Fall itam rayaan suñu borom ñëw fii ci jamono kon nag guddi barkeel la ñaan kenn ku ne fas ci yéen sax ko ay yërmande suñu borom ak ak tedd nga ay xéwal yi te te mu ci musiba yeeg balaa yëpp barke Seydina Muhammad barke Cheikh Amadou Fall ah, sëñ Fall na moom day koo xam ne kenn ku ne bu ci nekkoon di wax atam la du tax mu jeex ndax dafa ba da nga nit mu wax ci moom kim taan koo xam ne yow xamoo ko woon waaye moom lim nu digal nekk ci mooy sax ci jaamu yàlla ñu doon ay rek ci loolu la ñu ne digal na ñu digal na ci ne sax ci jaamu yàlla kàddu googu mu wax ne dañ doon taalibe Sëriñ Tuba rek xëy na Sëriñ Tuba digal jaamu yàlla ak liggéey ak loolu yàlla war ñu bokk suñu suñu bokk ak ak ku ñëw rek kon nag ci fas loolu lañu fas yéene nekk incha di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaan bokk jullit yëpp ah réew mi nag moom dañoo war a xam ne daa doon réewum jàmm nit ñi fi nekk itam dañoo war a xam ne jàmm rek moo fi xëj waaw ah, ah, ndax da nga dégg wax ñu bopp la te su ko xar ñaar waaye nit ñi nag léegi dañ ko bëgg a xar ndax xamuñu ni moom sunu borom moo moo fa bind bind ko rek kon nag jaamu yàlla lañu war a def boole sunu bopp boole sunu xol boole sunu lépp nañ bu baax damay topp poñe itam àdduna mag dara fi àdduna yu ñàkk solo yi nga xam ne amatul mucc te bañ ko topp waaw kon naa ne maa ngi digal bokk julli bokk taalibe bi ci ah, guddi tey jii ñu fas ñaan ci jàmm ñaan ci réew mi jàmm ci barkab Seexul Xadiim barkab Seexul Faadil dara bi nga xam ne moom moom la moom la ci suñu borom teraloon kon nag guddi gu màgg la ndax guddi gu teraanga la kon ñoo ngi ci ñaanal ñëpp teraanga ak jàmm barkab Seexul Faadil yéen itam maa ngi leen a ñaan seen seen rajo bi yàlla barkeel ko te yokk ay xewelam bu baax a baax wax jërëjëf ba waaw jërëjëf sant jërëjëf Mbacke message bi jàll na ni mu ko waxee rek réew mi réewum réewum jàmm la réew mi benn bopp la kenn war koo xar ñaar kon na ko ñëpp déggandoo noonu rek di dox ci jàmm di wax jàmm di ko def te message suñu fàllu bi itam mooy sax jàmm yàlla ak liggéey rek te nekk ay taalibe ñu ngi lay ñaanal ñu yàgg fee ñëw bu yàgg la fee fekk suñu borom yokk wér gi te sàmm la sàmm njaboot gi jërëjëf Mbacke jërëjëf sant nañu bu baax a baax tubarkàlla macha allah